situation bi Sénégal di dund situation bi nga xam ni opposition Sénégal mi ngi koy dund ndax il faut ñu defal leen tuuti la situation bi nga xam ni tey moo nekk di am Sénégal ginnaaw bi ñu génnee li nga xamante ni moo am le 24 février muy foqar ci boo xam ni le président Macky Sall foqar ci na ko confisqué ko euh, vote bi nga xam ni sénégalais yi def nañ ko ñu gis ci li ci xew yépp jarul ñu koy répété waat parce que ñun ñëpp ñoo ko dundandoo dafa am beneen situation bu grave boo xam ne mi ngi am opposition wu Sénégal surtout la jeunesse de l'opposition et les femmes nekk di ko dund actuellement moment bii ñuy waxtaan ak yéen ñu koy yëgal sénégalais yi ak àdduna yépp que au moins une trentaine de jeunes de l'opposition et des femmes de l'opposition et même des adultes dont le colonel kebe ñi ngi dans les lien de la détention li nga xamante ni nag am na mooy façon bi ñu koy defee même bu ñu koy expliquer foo ko natt ci ñaawteef weesu na ko bi ci jiitu mooy que ni tey euh, jeunes yi bokk dans l'opposition enlèvement mën nañu wax lu ñuy dund ndax des fois nga gis koo xamante ni dafa nekk këram ñu ñëw fekk ko fa du am mandat euh, d'amener du am dara dañuy ñëw rek ni ko dañu dañu police la moo la jël si yóbbu ko ba police naan ko yëg nañ ñi dafa am loo xam ne yéen a ngi koy waajal loolu lan la yóbbu ko police téye ko wala ñenn ñi bu leen neexee ñu libéré rek gis nañ suñu frère yoo xam ni ci lieu de culte ci juma ñuy julli juma vendredi heure juma lañ leen fekk ci seen sijaada fi ñuy jullee ñu jàpp leen génnee leen ci biir jumaa ji dem yóbbu leen kaso ni dañ leen di entendre ndax dañoo ragal ni jeunesse opposition bi dafa am lu ñuy def gis nañu ñoo xamante ni dañoo topp le président Idriss Seck et la coalition Idy 2019 ba biir Touba ci biir kër xalif bi ci cour bi ñu ñëw jàpp fa ay ndaw dugal leen ci oto euh, police bi yóbbu leen te bu ñu leen yóbboo dañu leen di wax ni leen opposition bi dañu gis ni ndax dafa am loo leen di waajal ak yooyu loolu ñu dund nañ ko Touba dund ko Thiès Dakar moom enlèvement yi yàgg na depuis avant parrainage bi la ñuy njëkk a yee suñu ay frères yoo xam ne ay xalifiste lañ di leen yee seeni kër di leen yóbbu maanaam enlèvement total la ñu nekk di dund au Sénégal ba tey ay jigéen ñoo xamante ni même toll nañ ci koo xam ni day nàmpal doomam ñu jàpp ko tëj ko ci kaso bi ay adjointe au maire boo xam ni Grand Yoff la nekk madame Bigué Simone Sarr ñu nekk fii ci permanence su Pape Diop ak opposition bi femmes yi organiser li ñu naan concert casserole taxaw ci suñu bintu permanence di dóor bool yi pour wane ni kontaanuñ ci hold-up électoral bi nga xam ni am na ñu ñëw jàpp leen jël leen am ci jeunes yoo xamante ni filmer rek la ñu def. maanaam jël li nga xamante ni mooy seen portable di filmer moment boo xamante ni gis nañu ñuy maltraité ak di dóor ay jeunes de l'opposition moment bi muy filmer ñu ñëw jàpp ko muy ma Lamine bi bokk grand parti bu président Malick gàkku ñu ñëw jàpp ko séq ko malmené ko ci kanamu ñëpp di ko gis même am na euh, presse bu fa nekkoon boo xam ni relayé na ko dugal ko ci kaso bi ñu gis ni nag loolu tamit dem na ba Ziguinchor jeune boo xam ni Yankoba Sagna la tudd ak beneen étudiant moom it fekk nañ ko ba këram Ziguinchor arrêté ko donc mën nañ wax ni c'est partout dans le Sénégal actuellement fépp foo xam ni jeune opposant nekk na fa dañuy xëy rek dem fekk la ci sa grand place ngay waxtaan ak say xarit wala fa ngay liggéeyee wala sa kër ñu jàpp la yóbbu la kaso ni dafa am ay enquête ak yu ñuy def loolu nag ñu jàppe ni intimidation weesu nañ ko léegi dañoo nekk ci carrément passé à l'acte ci yi nga xam ni menace yoo xamante ni régime mu président Macky Sall yàgg na ko teg yàgg na ko jëmale ci opposition tey nag le président Macky Sall dañu jàpp ni li olof wax mooy problème bi mooy sàcc ndënd yomb na waaye fa nga koy tëggee moo jafe xëy na bi mu demee dafa hold up électoral moo am Sénégal parce que élection amu fi opposition bi bokkandoo dajaloo quatre candidats yëpp déggoo mànkoo wan ko ni ko yow de comme foqati nga élection yi wéyal ak moom waaye kenn du la félicité ndax gëm nañu ni ñun lii nga jël moomuloo ko du ndam loo xam ni da nga koo moom ndax danga nga koo foqati ndax élection yi dara jaaru ci ci yoon loolu nag xëy na mu nekk lu ko metti mu Sénégal surtout ci jeunesse Sénégal ñuy xamal nag Sénégal ak àdduna ni nag la goutte d'eau bi nga xam ni moo débordé vase bi mooy démb ci ngoon bi ñu toogee di waajal xëy dem tribunal pour taxawu suñu ay frères yi nga xam ni jàpp nañ leen foofu nag lañ ñu woowee ni ñu colonel kebe moom it jëli nañ ko këram jàpp ko ci kanamu njabootam dugal ko ci oto jële ko ak ay gendarme pour jële ko euh, ndar indi ko fii ci ndakaaru ñu ni nag trop c'est trop lu ëpp tuuru jot na nag ñu jàkkaarloog Macky Sall wax ak moom ndaxte réew mii ñu nekk muy Sénégal bëgguñu ko taal bëgguñu mu nekk doom bu ñu sañoon Sénégal dara luy ñaaw téef ak loo xamante ni mi ngi am ci yenn dëkk yi du fi am waaye nag dañ naan du topp diw goo dégg fa ngeen jëm dafa soriwul Macky Sall mi ngi ñu puus ba ci mur bi ba suñu dernier retranchement fa la ñu Macky Sall puus ndax la colonel kebe mi nga xam ni servir na Sénégal un peu partout dans le monde servir ko Tunisie servir ko États-Unis former ay jeunes yoo xam ni tey ñi ngi dans l'armée li mu bind ci page Facebook am tey ñu doon xaar l'avocat gis ko ñu xam réellement lan lañ koy toppee li mu bind ci page Facebook am la ñu wax te li mu bind ci page Facebook am du dara lu dul mu ni bu ñu confisquer li nga xam ni mooy votu population bi nu ferons face nu ne l'accepterons pas lii mooy terme yi ñuy fàttali ni bu dee loolu mooy ñaawteef le président Macky Sall moom Macky Sall ci page Facebook am bi nga xam ni mooy page Facebook officielle am le candidat Macky Sall en 2012 moo ci bindoon moom carrément que ni régime mu Ablaye Wade lenn kese moo ñu deseeg moom mooy wàcc ci tali bi jàmmarloo ak ñoom te armée bi na jël ay responsabilités loolu lu ñu bindoon ci Facebook la waaye bi gën leer mooy vidéo vidéo boo xamante ni le président Macky Sall kàllaama gi mu ko waxee ci nasaraan la muy délogé waaye loolu mooy danañ dem ba palais président bi fa nekk ñu teggi ko fa bu dee nanguwul li askan wi dogal ñuy laaj nag Sénégal ak àdduna bu dee loolu président Macky Sall wax te moom ba mu koy wax mooy candidat élection te boobu fekk na mu nekkoon ministre de l'intérieur du Sénégal fekkoon na mu nekkoon fi président assemblée national fekkoon na mu nekk fi le premier ministre du Sénégal bu amee moom statut yooyu yëpp rang yooyu yëpp mu occupé ko te mu mënoon a wax kàllaama gu mel noonu moom tey bu téewee colonel Ndaw ci benn page Facebook kon benn post Facebook mooy le président Macky Sall fàtte na démb le président Macky Sall acquis démocratique bépp boo xam ni Sénégal amoon na ko mi ngi koy foulé au pied ñu koy xamal ni bu dee kàllaamagu ñaaw ak def lu ñaaw le secrétaire national des jeunes actuellement de Rewmi est dans les de la détention lan lañ leen di toppee dem nañu ba RTS wane seen naqar ni lii nga xamante ni mi ngi am ci Sénégal tey du dëgg du yoon ñu wane ko loolu lañu leen jàppee am ci ndaw boo xam ni Basirou Dieng la tudd bokk ci njabootu sëñ mu euh, sëñ Moussa Nawel ñu jàpp ko filmer rek la doon def ñuy xamal ni au même moment suñu mbokk pur bi ñu leen di attaqué Tambacounda bi ñu demee ba génn euh, Tamba dañu leen a dab ci nit yoo xam ni nëbbatuñu woon à am ay journalistes yu leen identifié xàmmee leen ñu jël ay oto taal ko ñëpp di gis jël ay nit di leen waaj rey yàlla rek moo ci def ndox mu sedd mais foofu mënoon nañ faa rey ay nitu pur yu bari ñu gis ni la procureur ne s'est pas autosaisi ñu gis Penda Ba une bu dëkk ci zone Fuuta bi dëkk fi nga xam ni fala Farba Ngom dëkk taxaw na jël xeetu lëmm saaga leen fa saaga gën a ñaawee joxar bi ko wax leen ko te dañ ko jox passeport mu génn Sénégal Sénégal nag tey ku artuwul ku attewul dinga artuwul atte li ñu gëm mooy kilifa yi ñu fi am ñuy nit ñu baax le président Idrissa Seck ak coalition Idy 2019 ànd dem ci sëñ mun taxa mi nga xam ni moo fi Sëriñ Tuubaa tey mu ni leen Sénégal de fan yi ñu toll séentu woon nañ ko ci yeneeni bëccëg yu dul jàmm ji yéen ñi tax jàmm ji am am ngeen ndam lu rëy loolu la sëñ Muntaxa wax ndax liñ ñu catégoriser woon mooy opposition bi dañoo bëgg a taal réew mi tey ñu gis ni réponse bi ñu def ak moom mooy ñu dëkk bi dara tàkku fi mais wan nañu àdduna Macky sàll tey ngañaa ngañaayam gii mu naan ngañaay la foqateem gii mu naan ngañaay la Sénégal dafa mekk ci mel ne lu nekk ci dëj mel ne lu nekk ci dëj mel ni ay nit dañu am naqar parce que dañu confisquer seen vote loolu nag moo ko jaral tey muy xoqatal di tëj ak di vraiment def ay ñaawteef yoo xam ni intimidation yi weesu na ko dafa passé carrément à l'acte bi ñu boolee loolu lépp nag ñu gis ni li waa APR di def ci ñaawteef gis nañu fi ndawu APR yu àndandoo dem ba buntu pale de la république yaakaar naa buñ ñu naan sacralité ak lieu boo xam ni war nañ koo respecter pale fa la sacralité xëy na yam ñu taxaw buntu pale ba di joxar bi ay xeer di dóorante ci biir pale ba di xeex ba ñenn ñi di taal ci buntu pale ba mais vous nous demando demandons de la presse ndax gis ngeen kenn ci ñooñu ñu arrêté ko tey c'est clair net. et limpide que Sénégal nous vivons maintenant dans une dictature te loolu duñu ko seetaan dem fekki suñu frères yi ak suñu sœurs yi kaso moo ñu ko gënal li waral nag déclaration bi mooy harceler ak topp gi ñu président Macky Sall di ñu topp di ko xoqatal ak di di def lu ñaawteef diggante mook opposition bi bu dakkul dans les meilleurs délais nous la jeunesse de l'opposition du Sénégal nous allons rappeler à un rassemblement national de la des forces vives de la nation à la place de la nation muy place de l'obélisque ñuy woo sénégalais fépp foo nekk ci Sénégal nga jël si kaar yi ñëw fekk si ñu ñu taxaw def rassemblement pacifique fi nga xam ni mooy place de la nation pour xamal Sénégal ak àdduna li nga xam ni moom la ñu nekk di dunde tey